salaatun wa tasliimun maal biis wi sarmadan ala man bi muksimaal amni wal bashar firaari bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsir asalaamaaleykum sëriñ bi eh, laaj nga ma loo xam ne sawar naa ci laaj nga ma loo xam ne xam naa ko lu ma xam la sama diggante ak sama traayu bàmmeel maa ngi taxaw ci fukki at ak ñett Eh, loolu dama ciy parafito di gërëm docteur Sylla di ko jël ngërëm li di ko teg ci loxoom mu tegal na ko ci loxol doomam ngërëm loolu maa ngi ko jëlee ci njabootuk seexul xadim bi ngërëm loolu maa ngi ko jëkk a jëkk jëkk jëkk a jote ci sëñ Abo Mbacke xalifa Serigne Fallou sëñ Abo moo ma ne Ndiaye ma ne ko Mbacke mu ne ma ku jëf-jëf ji ma ne ko docteur Sylla de moo ma ko yónni wax ne Ablaye Sylla moo ko def mu ne ma waaw ci bisub sëñ Fall bi ma ne ko ci bisub sëñ Fall bi mu ne ma Njaay boo demee neel docteur la ak doomam ji nga xam ne si moo jël teraanga ji indi ko ci bisub sëñ Fall bi bisub sëñ Fall bi maa ngi lay xamal ne escalier bu mu teg tànkam ci lum mu mën di bëgg dana tegaat beneen bu ko gën a kawe ba kawe ga àgg fa nga xam ne si dana kawe njortam sëñ Abo moom Serigne Fallilou moom wax loolu mu ne maa ngi ñaan ci barkeb Serigne fallu mu ngay bis bii yàlla na yàlla yeggale seen yéene yàlla na yàlla yeggale yéene Ablaay ci njabootuk Seexul Xaddim rawatina bisub sëñ Fallou bi kon soo fi ñëwee di laaj maanaam bi nga xamee ne Ablaay tàmbali na jënd ay nga ay xéewal yu jëm ci bisub bisub Serigne Touba bi fukki at ak ñett yoo xam ne lu mu jënd ci sama loxo la ko papaam di jaarale maa koy yët Serigne ba bañ koy yët maa koy maay ànd ak moom ci daral gi jënd ko jël ko ci oto yët ko sëriñ bañ koy yët fukki at ak ñett ci gis nga li nga gis ren du du asaar du lu tàmbali tey du du lu tàmbali démb te dégg naa ci kàddoom mu ne man de lépp lu ma am yéene naa ko njabootul seexul xaddim gi te fas naa ko yéene andi tuuba dégg naa mu wax beneen wax boo xam ne nee na barabu sëñ Fallou dey li feeg maa ngi dund tey jot ndigal li jënd loowuma ci nit ab contact liggéey boobu ni ma la ko bëgg a waxee sëñ bi mooy man bi ma tàmbalee liggéey bi ak léegi def naa ko fukki at ñaar fukkeel bi ak ñett ma gis ñaar yu bokk si ci liggéey bi ànd ci ak ànd seen baay ak man muy euh, Baye Sall ak Assane liggéey bi yóbbu nañ ko foo xam ne wax dëgg yàlla àggu fa woon ndax ñun maag baayam baayam dafa bëggoon lépp lu muy def moom da koy def rek bëggut ku ko gis bëggut ku ko xam waaye gone yi xamal ko ne ko liggéey bii ñuy bii Ablaye di liggéey day papa képp koo xam ne bëgg na barke wala mu bëgg yokkute dana ci ànd dañoo bëggoon nga dimbale nu may ñu ndigal papa ñu ànd ci liggéey bi ni ngeen koy jébbalee di ko di ni ngeen koy liggéeyee di ko jébbalee nu ànd ci ndax nun kat li ngeen bëgg lañ bëgg muy Assane ak Baye biñ ko àndee eh, Baye ak man ak ak ak ak Assane ànd nañ dem ci sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim biñ ko jébbalee teraanga ji dafa wax lu leer nañ daf nekk si eh, Ablaye de ki lebal eh, am na pay sëñ Fallu ku neex lebal la ndax am na pay ndax sëñ Fallu de lebal na ñëpp fay na ñëpp ku ku ko mas lebal rek fay na la waaye eh, neel Ablaye de fii mu teg tànkam ci liggéey ci ci liggéeyu Serigne Touba bii na ko leer ne dana fés ba ñëpp seen ko neel Ablaye ñëpp danañ ko gis de. ndax sol na daal woo xam ne day nun ñi kenn ku ne bëggoon na koo sol eh, man daal maa ngi lay xamal ni duma gone am naa juróom benn fukki at ak juróom ñaar ah daaray sëñ Modou Bousso Dieng laa nekkoon sëñ Modou Bousso Dieng lañ ma tudde sëñ Modou Bousso Dieng nag won na ma lu ne waaye li li ma gën a sant yàlla daal mooy gone gii ma gis mu takk ay dàllam ba mu dëgër mu ne fas naa yéene liggéeyal seexul xaddim fas naa yéenee jëfal seexul xadim jëf joo xam ne su ma yàlla mayee fan wi ak wërsëg wi day ñëpp danañ xam ne danaa ko def te njistaluma ko wutuma ci ku ma gërëm wutuma ci ngu ma ŋàññi li feeg sama ruugaa ngi nooy te may jot ndigal li fas naa yéenee liggéeyal seexul xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa salaam